libération ne kawteef gannaaw taximan bi faatu yàggut te ñu sànni néewam ca canal bu Thiès yéene cabinet enquête ba wone na ne jarbaatam loxoom génnu ca teg nañ ko ca loxo Cheikh Mbaye di taximan bi ñu fekkoon ab néewam ci canal yi ONAS ya ca Thiès libération nee nañu ab jarbaatam leen xam la ci enquête bi jàppagum li ko taqal moom jarbaat bi bokk na ci ay bagages personnels yu Cheikh Mbaye yu ñu fekk ci moom boole ceekit bi ñu koy enquête waxul benn wax bu taxaw libération ne kawteef gannaaw taximan bi faatu yàggut te ñu sànni néewam ca canal bu Thiès yéene cabinet enquête ba wone na ne jarbaatam loxoom génnu ca teg nañ ko ca loxo Cheikh Mbaye di taximan bi ñu fekkoon ab néewam ci kanaali ONAS ya ca kees libération nee nañu ab jarbaatam len xam la ci enquête bi jàppagum li ko taqal moom jarbaat bi bokk na ci ay bagage personnel yu seex mbay yu ñu fekk ci moom boole ceekit bi ñu koy enquête waxul benn wax bu taxaw